waa mbooloo bi yëpp ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant vraiment dañoo kontaan ba dañoo kontaan ba euh, ëpp nañu daal di leen gërëm yéen ñëpp ñi fi teew yëpp gërëm nañ leen ci turu famille bi man ak Marie ñoo bokk ndey ak baay maanaam ko jox ko mais. yal na esprit saint bi jiitu ci lépp lu ñu sumba waa Kër Moussa amuñu seen fay ndax Marie dëkku fi mais nag fii la dëkk gërëm nañ leen sant nañ leen jërë ngeen jëf. merci beaucoup Albert Toye voilà ñu ngi leen di jaajëfal lu muy def daal jàpp nañ ne euh, ci famille bu mag bi la ko jëlee moo tax mu koy partagé fii. yéen tamit famille am yal na leen yàlla gën a yokkal cawarte yàlla gën leen aar léegi sans plus dañuy def dagg ruban bi wayuma taasuuma waaye Fatou Dieye dafa dugg si léegi kan yónni ko madam la députée muy kan Aram Ndiaye fatibaat fa kàlla macha allah ni ko soo demee joxal ma ko mari santal ma ko gërëmal ma ko avant may ñëw sama kër ni ma maa ngi ñëw man la délégué mu nga nële toog muy faat jeey fatubaar fa kàlla macha allah moo andi enveloppe bi ni xam nga ku ko jox député Aram Ndiaye fatubaar fa kàlla macha allah ma nga waxoon bis ba dara ñaawul waaye lay sama mari mi yëf yi day metti rek waaye sunu sëriñ a ngi nii dañ koy tàllal loxo yi ñun fu nu jëm dañuy am yar am teggin la nu judduwaale ndax doon géwal ak ñeeña du ngaj xam nga ñu ko yore yar yow ba nga accès dañoo waroon a sukku rek tëdd baña a tee sax wax waaye xam nga ko jara ko jar yéen ñu ñaanal te fu nu toll dañuy dem ci micro yi di jàkkaarloog xew yi di jàkkaarloog ñiy toog di délégation yi fu jam jëm yóbbu ñu te lu nu am jox nu ko kon dama ne ñu ngi la koy tàllal waaye sama mari sama mari oh ñaari baat rek yokkal ma volume tuuti ma raay raay mbelle waaw bu ñuul bi ma ni tëccu ko na ku ma kollee doo ni mari soo toogee te waxuma leen lii way ni gisaani na gisaani ga jàpp ndomba yoroo foloo gisaani kat ba ni ma lii kat dara du ko dindi way ni mari yow ku la bëgg na bëgg moom mi la bind ci baax ku la bañ na bañ yàlla moom mi la bind lay ni ey dama koy dagg da dama koy dagg wal ma sama ba xarit da dama koy dagg billaay maa ko bëgg tay moma ma bëgg ndi billaay moo ah ah ah merci beaucoup maman jërëjëf waaw waaw man bëgg na li dé di ngeen ma tassul buñu ñu ma fecc ay awma luma len ma jox voilà on va continuer dañuy dag ruban bi ça va se passer comme suite euh, délégation bi docteur Franck moo suivi de docteur Maxime bon normalement c'est madame le maire mais comme newu fi docteur Franck ak docteur Maxime vous dagué nañ leen jox ci au bi madame le maire bu ko nous mu xamné euh ñiko nañ ko dignement nous ce pas dañuy xol crèche bi nu mu mel su ko mi ñëw fi wala yeen mi di jël photo nous sommes comme ça ñu andi seen doom yi ko tata Marie Hélène ndax mu mun leen ko yoral su ko defee képp ku dem liggéey boo eggee sa liggéey sa xel day dal ndax di nga sa de bonnes mains voilà sans plus tarder dañuy jóg topp ci les docteurs Franck et Maxime nous euh, dem dagg géwél yi alalu yàlla de directeur géwél yi alalu yàlla merci beaucoup merci beaucoup géwél yi alalu yàlla bu ko doon bu ko saagal di ko amee may ko wala ji ko may samba gàttal Sangu ba set, so sama yere sama yere so sama dalil ñune ma faja manele patronage manele patronage la bëgg di